asalaamaaleykum Sénégal man la Beydi bi de bu bees yaa ngi ci émission ndekki lii ak maam Nicolas jërëjëf mu ngoog kon jërëjëfati bay di bi 98.5 le choix de la différence et la première radio d'information du Sénégal bien le bonjour chez vous comment ça va ça va très bien chez nous merci beaucoup bienvenue sur Sud la première radio d'info et bienvenue dans Nekili, la première émission de Sud Nekili, Namon Len Lol, ñu long weekend. end jour ferie bi ñu Nudalde, démb ñu Akien. di euh, dellu seeti ak ci émission Ndekki émission nandite yi ànd ceeg seen i soppe ah Dakar mais également à l'intérieur du Sénégal, puisqu'on le sait tous, Dakar n'est pas le Sénégal, n'est-ce pas Merci à vous qui êtes sur l'international et qui nous recevez via nos différentes plateformes digitales. maa partage TikTok par exemple yéen partage Oustas Maurofei partage Ammana

n'est-ce pas. waaw waaw man de yooyu. dafa saas ne woon naal di nga ubbi TikTok de. man dama aw ma ko di. waaw mais di nga ko ubbi. ah gars yi man dama a hmm. ah, diw na ko nangam wala diw kii di wala moo dafa yow dégg naa la ci. waaw TikTok bi diw nee na nangam ko ah. ah. ku ne dem. lu ma téye du ko téye parce que daa ne ci yitte mën na ci yitte rek. waaw ah, ah, di nuyu ñëpp. Ah. di nuyu waa Xelcom Fish parce que ñoom ñu baax lañ ci ndekk li di nuyu sëñ Mor Gueye bu baax a baax waaye nit ku baax mi borom jën yu baax yooyu waaw ko mën yaam toggal ko yaay ba tey waajoo jëw sama yaay de ba tey mu ngi ma ciy toggal ceeb yu ceeb yu baax suma yaay dem fa laa añee barke Rasul xam dem férié la woon donc ñoo dem añi ñun ñëpp seen suñu kër yaay rek toog Hein? ngeen ñëw toog. bilaay walaay kon nak ñu ngi koy nuyu bu baax. di ko nuyu di nuyu Mbacke si la bu baax a baax sa bawol di nuyu képp ku mën a doon. Hmm. ah xaar sama nuyu sama mbokk yi nekk TikTok ñoo ñooñu. Hmm. waaw maa ngi leen di nuyu. yaayee de man ko ci xam man xam nga man yooyu moom. oustaz ñooñu ñu ngi leen di woowee les tiktokeurs et les tiktokeuses. les tiktokeurs et les tiktokeuses. très bien bu dee kër bi mooy góor ñi. voilà bu dee keus mooy jigéen ñi. waaw koy jàngal man yow waaw parce que miinoo tiktok. les tiktokeurs da nga koy xëcc de kër. yow est ce que ñu ngi en direct ci youtube bi ah très bien kon nag bu leen ko kenn en direct sud fm seen radio, ndeki li number one ñu joxante fa daje yéen ñii Tiktoker, nga ne ak tiktokeuse voilà di joxante dig daje ci youtube bi fa la di xewee sénégalais de l' de la diaspora yéen ñi nek europe amérique asie feneen ci afrique bu leen fàtte saa bu ngeen defee seen comment ngeen def ci euh, drapeau réew bi ngeen ne président Macky Sall mu ngi koy xool donte jamono ji mu gës ca sommet Amérique. Euh, Afrique du noonu. waaw foofu la nekk mi ngi États-Unis. maa ngi connecté actualité nag. man dama nekk ci Twitter lépp luy xew. seconde partie waaw il est il est parti xam naa peut euh. mu ñëw suba wala gannaaw suba. ay sommet la ñuy def foofu xam nga xam nga tamit sommet boo ko déggee rek mooy ñaari la plupart mooy fu chef d'État yi di daje. Mm-hmm. vous avez sommet xamal hmm. rencontre mais <laughs> la plupart du temps <laughs> <laughs> le sommet. Ah, congrès. jobaxtan nga. ah som bokk seen jobaxtan yow yow som tekkil tekkil sobe ci wolof. xam nga ñun dafa am yow mooy yi dafa am ay sens yu ñu koy dugal ci phrase yi muy doog a signifié waaw sens bien sûr. mooy yi dañuy am sens boo xam ne bii somme ni somme comme ci sim bi quoi ci kaw waxee. waaw mais loolu mooy jobaxtal manam congrès yooyu ñoni soufa ci suufa suuf ne ca kaw a kaw waaw d'accord légui baxtalu selon l'entendement de Mbacké Sylla sommet mooy ca njobaxtan la selon selon selon de lima dégg ci li ngay wax sommet mooy ca njobaxtan la <laughs> euh nga l'émission qui fait le buzz ndekki li amul euh, utile agréable comme d'habitude euh, le buzz partout TikTok Oustaz Maodo Faye Mbacké Sylla très partagé sur TikTok et très suivi sur Snapchat également euh Sista Abindour maa koy nuyu Abindour euh mu Youssou Ndour. ah Kouba. ah oui. Ah, abi abi Kouba. baax sama jigen la. Euh, oustaz. Euh, aju ajuma dama jóge dama jóge juma rek. Hmm. dem souma keur. Euh, ma am envie lenen quoi. mais comme abi dafa am restaurant dama koy suivre sur Snapchat mu may suivre ma gis menu euh, soupe kanja la woon. Hmm. dama wo Abi Ndour ma ko Abi soupe kanja bi ba jeexagul il était 15 h passé Abi xool chef rek ne ma maa ngi lay yónnee suuf kanja légui légui léegi léegi léegi. ma ne ko ñaata mu ne ma noo cadeau de ta sœur ma wax jëm kaw jëm suuf mu ne ma waaye bàyyi mu sedd ah abi ku baax waa Abis Garden maa ngi leen di mm. bëggee jaajëf abi Ndour kenn du yow merci suuf kanji bi neex na macha allah je me suis régalé ah, ah borom baax la ah xam naa ko baax na nag mu ngi leen di déglu ah seen soppe la seen fans la foofu ca Abis Garden waxtu wi xam nga léegi dakaar moom boo connecté wul waxtu bi ak Sénégal euh, ci waxtu bu baax bi ndekki li xam nga nekkoo nekkoo ci game bi doo nante donc moo tax gars yëpp xam fi ñuy daje kon abi ak waa Abis Garden nuyu naa leen Papa Diouf woykat bi dama dégganteeg moom téléphone moom it démb mu ngi leen artiste yu bëri nag oustaz danoo bëgg a ñëw ci émission bi ma ne leen xam ngeen noonu mooy suñu problème politiciens yi dañu xëccoo <laughs> émission bi ma ne leen laaj leen Maodo Faye kilifa politique yi bëgg ñëw ci émission bi ah, yëpp ah, ñun ñun ñun dañuy am problème légui nak artiste yu mag yépp bu ñu bëggee ñëw ñoom itam ci émission bi xam nga dañuy gën a am problème parce que ñoom tamit nee nañ ni sénégalais yi baax yépp di def léegi ñoom noonu la ñuy def dañuy xëy ñoom itam di déglu émission bi waay absolument ñu dañoo bëgg a ñëw ci dékki waaw Pape de moom sama sama ngóora ne woon naa ko da ngay soppi sa sant yi sant fay waaye mënuma ci dara Pape Diouf ma nga lank ma nga lank ci njuufeenam googu rek wax naa ba son <laughs> bu ñëw rek bay ba gën la ko saako ñebbe rek nee naa ko léegi leen lañuy def bo ñëwé ndekki li buñ fi nek di wax ay musique ay musique papa diouf affaire yoy dañ lay poser ay question yu tang jeur mm, voilà comme ça nga répondre yu tang jeur comme ça ay ñom suma waji bamba bu jotaay bi tv di la di la di la di la reprendre mais bo fi nekké nan wa sama disque bi hein ah, sama woy wi sama groupe bi xam nga yoy non c'est pas intéressant gaay duñ la partage il faut nga nekk fi di wax yu tang comme nan xolal ma meun yu sundur xam nga affaire yoy non bu ko défé gaay partage la papa diouf di tak je ne suis pas légal de Youssou Ndour Nicolas yow lu tax nga bëgg xul <laughs> yow ah ndax mu bëgg la ay xulóo yi ay yii pour pour nit ñi ñëw <laughs> yow dëgg li wax yow si Papa Diouf naan maa man Youssou Ndour <laughs> ama yooyu tam ah, xam nga loolu information la et puis xam nga ndox ndox ndox nii bu nee tekk rek day am ay lënd ak yooyu da nga yëngutoo bu yëngutoo korol waaw kërëb kërëb jëng jooyu waaw waaw waaw dara da ciy génn daal ci yëngu ya moo tax ni ko moom na combat rek waaw affaire sandal yooyu ñoo naan ah non bon man maa ngi tàmbali woy bi ma nekkee xale waaw sama cassette bi waaw bëggoo yooyu bi may commencé woy xam nga dama ko ans artiste yëpp interviewé ñu may les comme <laughs> Viviane interviewé di def variété après may def variété après euh, mu repéré ma mu ñëw ma Dakar super ah. vraiment en 2022. vraiment gars yi dañu bëgg yu quoi. xam nga <laughs> Viviane ñëw taxaw naan <laughs> émission ba yàqu na Maodo sorox na da ngaa yëmul benn place Maodo yëmoo toog di di kër. non non xam noo mën xam moo surux loolu laa gën a surux ba def. nga noo ko waxee. Maodo surux la. wala da ngaa surux. non pas non seen jawaat quoi. Eh, dafa dafa doon leen ma seen. yëkkati leen si biir dem si surux de. ok yaakaar naa lu man li ma réew ma carte bi moom surux bi laa koy dégg. sa sa sa loo suruxal. sa jafandu ci ci kii bi. non non gi baaxul lef ya baaxul. moo tax it da ngay téye sa loxo fu ne nga jàpp fa ba surux nii. <laughs> Ah, yàlla baax na xam nga lii lii ku leen ko nettali ngeen ne mais lii lii mënta ne. émission bi bës. ok balaa sax bàyyi bàyyi bàyyi mu set. léegi dafa non non man garaawul de mais surux baatu surux boobu laa gëj a dégg. Ah, xam nga xale yi ñoo koy wax. olof la di surux. waaw xam naa xam naa surux la kay. waaw surux kay danaa laaj surux na ci ron la gaa ba. xam nga man oustaz man ba ngay. non bàyyi bàyyi ba ngay surux man gisuma la. non gisuma moom kay kii rek xam nga bu rek. <laughs> déedéet dama ne nga jafandu fii balaa muy surux. waaye nag boo nee nag boo nee ba ngay surux tamit la ma surux. ok eh, eh, eh, doo ko réglé siis bi ba léegi siis bi normal bi dafa suuf. non c'est que siis sax moo baaxul nag. dafa suuf non non mais mais garaawul ah <laughs> non c'est bon c'est bon c'est bon ah ah nga def 16 ah non baax na su ma suruxaatee wax suruxaat naa rek. <laughs> Ah, baax na yàlla baax na ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di am mbégte. nanu ko amee saa su ne ci utile ak agréable ndekki li émission nandite en direct YouTube Facebook jamono ji Sud FM Sen Radio première radio d'information du Sénégal heure bu baax bi ak émission bu baax 11h18 minutes une fois n'est pas coutume dirait Mbacké Sylla nous démarrons avec la une de Sud Quotidien de ce mardi 13 décembre 2022, Lou def waxu lu n'est-ce pas euh, DPG oui, déclaration de politique générale Amadouba est étant Premier ministre, Par son grand oral, l'opposition agite le, euh, la censure. C'est bien cela. Voilà. Non est le Sud Quotidien, Fosselé, Unum Bouteille Billet. Oui, déclaration de politique générale, Amadouba, euh, Amadou suis allé à Abindour Ndour nga assemblée moom itam di snap di snap di snap parce que Amadou Ba xaritam la te woyoon na ko bu am solo Amadou Ba moomee def déclaration de politique générale démb ci assemblée gis nga la fa oustaz Maodo. ak it euh, la ca euh, tukkee ñaari mbir euh, fës nañ fa lool benn muy ñi nga xam ne parti au pouvoir.

nekkul un néophyte li ñu wax naan néophyte koo xam ne kii mi ngi doog a ngi doog a tabbi li ñu naan da ngaa ñor tabbeem ngësam mee hmm. na ci maanaam quelqu'un boo xam ne bi il est intellectuellement il est bien. et ko waxee ni nga ñor tabbi. da ngaa ñor tabbi wala ngësam oh, moo la indaale oh da ngaa ñor tabbi wala ngësam moo la indaale. ngësam lee la indaale wala lee la indaale. loolu taasu la wala olof la. loolu mbàkk firil ko ko parce que. loolu waaw mais am na am na ñu ko taasu sax. xam xam nga ñor tab bi mooy mooy garab goo xam dafa ñor waddal boppam maanaam maanaam tab bi mooy waddal boppam gësëm nag mooy Euh, xooxuma maanaam mango boo xam ne ñor na waaye wëddut nga ñëw gësëm ko ah. gësam car bi après mu dal boppam mag ñi nag buñ dañ maanaam aw maanaam aw léebu wolof la hmm. dañ daan wax naan man nag du ma ñor tab bi hmm. maanaam du ma du ma koo xam ne ngësam lee ma indi damaa ñor tab bi ah. c'est-à-dire mooy yëf yi dama cee bokk waaye nekkuma koo xam ne dañ ma gësam boole xëcc a ñëw quoi daanañ ko gaaruwaale nekkul ay kon fekkee ma ci boole kon dama cee bokk la dama cee bokk ah. Papa Diouf woykat bi may tudd nii woyoon na fii yëngal gësam voilà peut-être mais xam naa yëngal gësam boobu xam naa li mu doon wax noonu amul maanaa <laughs> amul maanaa mooy boo ko doon tekki nii doo ko làmb di ko daj fekkee ma ci boole waaw ah, ah d'accord man moom damay daaj ji rek <laughs> alors li ma wax léegi Amadou Ba <laughs> alors Amadou Ba nekkul koo xam ne kii par exemple c'est pas un néophyte maanaam waaw nekkul un néophyte comme je disais tout à l'heure mm. tantôt donc pour wax la ne moom nit la koo xam ne kii mm. xam na terrain politique bi xam na assemblée nationale nekkoon na fi ministre xam na affaire yi nu mu demee mm. et que tamit gis naa discours bi man bi ma koy déglu. vraiment xam naa ni moom ki ko xam ku ko ko bindal mais bindal na ko français bu fourni bu baax a baax a baax a baax a baax. sur moom daal lépp rek lépp loo xam ne laaj na ci contexte lu ñu war a mën a bindee texte moom wax. te xam naa ni député intellectuel yi nga xam ne bi. nga xam ne moom la rédigé bind ko su amoon tuuti tuuti français bu xaw a këfin. xam nga gars yi noonu la ñuy defee yow say texte bi sax ni nga kii nangam. Hmm. heureusement loolu mucc na ci muy beneen remarque un bon français et ça a été très bien lu Légui nak euh bi ci des tamit moy programme bi comme li ko gouvernement bu bees bi waxone dañ waxone ne dañuy def gouvernement de combat. Mm. effectivement lool tamit waxna ay priorités yu bëree bëri yo xamni ci lañ fas dem mm. mais opposition bi dal na ko nag loolu lépp nga wax nak ay tolof tolof la. opposition bi léegi nag ñoom Birame Souleye Diouf na ko sax léegi dañuy def sax léegi mo waaw Souleye Diouf dañuy dañuy dañuy dañuy def sax léegi motion de censure ñu xam nga mooy lan hmm. ñu dajewaat assemblée nationale woote pour daaneel gouvernement bi xam naa nag ndax dana jàll nag loolay problème bi loolu waaye mën na jàll. Ah, probablement parce que ah. pour une pour la première fois aussi dooley xaw a. xaw a kii waaw bu bu fiyee bu jàll. waa il suffirait d'une Mimi Touré pour que mu jàll. oui mais xam nga man li ma jaaxal mooy xam nga opposition bi tamit. <laughs> gars yi dañoo doy waar. dégg naa dégg naa il suffit d'une Mimi. pour que ça passe. Mm. oui mais xam nga bu ñuy voté budget budget yu bëree bëree bëree bëri. Mm. léeg-léeg gars yi lu ñu contre contre contre bu ñu compté gars yi danañ ëppil mat 10 wala 20. wala ah safra 10 wala 15 xëy na peut être danaan bii neex na ma wala eh, bi budget sax nañ ko voté mu jàll garaawul. Mm. mais motion de censure bi moom. ay quatre ma mu jàll. Ah. waaw man ah waaye tamit gars yi duñ bàyyi mu jàll. sax tamit bi du bàyyi ñu koy daaneel. je pense bonne motion de censure loolu dañ ko en opposition bi wax nañ ko nii rek yaakaar naa ni effet de sonore bu ñu dóor la nii rek. mais nga baal ma député majorité ñaata la ñu. 82 83. benn la waaw euh, ok euh, opposition bi ñoom ñu ngi toll ci. 82 ñoo leen benn quoi xam nga mimi xam nga dafa ay non alignés loolu nag mooy. problème motion de euh, ah, mën na jàll oustaz. non xam nga avant avant ñuy def motion de censure bi ah. Hmm. ba ñuy daje ay commission ak yu demee noonu gars yi ñuy crom xam nga affaire bi dafa jaxasoo de. affaire ah, bi gars yi ñu lan. <laughs> gis ci ruq beeg yooyu xam nga man mënul maa <laughs> mais gëw ma ne daal man gëw ma ne opposition bi li bëgg mën naa nekk parce que tamit gars yi duñ leen ko may xam nga affaire bi mm. affaire bi lambi golo la quoi kenn ku ne da jàpp xëcc sa bopp jéem a wut sa ay arme taxaw am nañ droit da nga gis ne yooyu noonu yu sew sewaan yooyu noonu mën na mën na kii mën na freiner affaire yi oui ak ak cee gaaw. Hmm. yooyu noonu noonu ak kii bi ak kii kii hmm, hmm. ak yooyu noonu. freiner mais xam nga problème bi fan la nekk. tamit non gars yi nga xamni ñoo opposition bi bëgg def motion de censure parce que gis nañu déclaration de politique générale bi xeyna nangam baxul nangam loolu l'opposition est dans son rôle hein l'opposition est dans son rôle non c'est normal mu opposé andi ay affaire am wax nangam ak nangam mais quand à nak yaakar ne motion de censure bi dana jall mom fi ci Sénégal gaw ma mais à supposer. gaw nga bal ma balaa ma laa jox à supposer que mu jall euh, ce serait quand même extraordinaire que Amadou Ba premier ministre présente qui une déclaration politique générale ba pare ñu le gouvernement donc donc dañuy recommence à zéro. mais ah, ah, bah, parce qu'il faut que ñu le premier ministre le gouvernement bu assemblée non président ça sax xëy na mën na mucc. Hmm. assemblée moom bu keroogee moom. Hmm. daanaka moom seen lépp loo xam dafa waroon a dem fa gouvernement war ko appliquer. Hmm. lo lepp dañ ko fa sat ci ndox mi. te loolu nag laa yaakaar ne du am lépp la ñuy reprendre à zéro. en tout cas au niveau de l' assemblée kon bu boobaa gouvernement bi ñu tabb nii bi ñu mujjee tabb nii moom dootul am njëriñ. donc moo tax euh, moo ma yaakaar ne góobamu dana dem. na solo de démb de man naa ci ñi ko xaw a yendoo seetaan xool ci lu baree baree bari. Hmm. waaye di gis Sénégal léeg gis loo xam ne moom da ngay xam ne lii moom ñun la rek. Hmm. loo xam ne ne da ngay xam ne ci ñu dab la te waroo ko fa woon a gis hmm. bu dee lu jëm ci euh, taxawaayu amadu Ba ak euh, yam fa wax man lool rek laa doon xaar ci moom mooy euh, nit koo xamante ne borom xam-xam la nit koo xamante ne bari nay jaar-jaar comme ni ko Maodo waxee wax na loo xamante ne nii la ca ëpp manees na koo dégg hmm. donte nag bu waxee ba daaneel da ngay gis yoo xamante ne déggoon nga ko fi ndax hmm. gouvernement buñ mas a taxawal wutal nuñ ko aw tur gouvernement euh, xawma lan euh, kii fast track mhm. indi euh, indi nañ fi xawma façon bu ne ba bii ñu tudde ko tey gouvernement de combat mhm. day dellu ca ya ca amoon rek man moom yooyu gëw ko li ma gëm mooy def ma gis rek waaye tur wi moom la muy tekki sax duma ko jéem a lijjanti waaye problème bi ma gën a am nag du ci du ci jëmmi ministre bi ci boppam mhm. waaye man ci député yi laa am problème léeg damay gis man député yoo xam ne xam naa ñoom daal bu ñuy dellu seen i dëkk waa dëkk ba war nañoo fàq ya taxaw ci buntu dëkk ba xaar leen ndax ñoom day mel ni li leen tax a ñëw assemblée xamuñ ko gis naa ñoo xamante ne maanaam mënuñoo jël kàddu wax jenn wax joo xam ne amal na njariñ pénc mi maanaam bu ñu jëlee kàddu rek débat bi gën a gën a arriéré gën a suufee ci pénc mi ñoom ci débat boobu la ñu nekk mooy wax ci jëmmi nit am ñoo xam daa mel ne dañoo ñëw assemblée uniquement ñoom pour saboter maanaam bu nit di wax daal bu mu fi waxee mm. kenn dafa mel ne maxi yaa ñu fàttaliku maxi koñ yooyu mm. wala nawetaan ñu naan taqal ma diw bu Maodo gis mm. nga xam ne yow teere bi yëpp Maodo doo nga la ci intéressé fu mu ah. fu mu dóore nga dóorum pàdd nga ne loolu fu mu doon xewee nawetaan waa nawetaan da ciy am nawetaan nii boo ñëwee la groupement bu ñu dem dañ naan euh, équipe bee euh, ñoom ñoom ñoom ñoom équipe saa njàmbur waaw euh, seen ailier bi bu doxee ah. dañ ñuy gagné ah. léegi ñu ne Pape Laye toppal ma ailier bi nga xam ne danaan la ñàpp rek foo tourné mu fàdd nga daanu ñàpp la lay def ne weteñ nga xam ne foo tourné mu fàdd mu daanu léegi député yi da ngay gis ñoo xamante ne même buñ doon nelaw hmm. buñ ne eh, ñu jox kàddu gi Maodo Faye ñoom yeewu nañ uniquement Maodo bu mu fi waxee man bi Aminata Touré jógee di wax damaa rus. parce que xam nga ñi ngi doon wax ne euh, tey violence dóor jigéen ak nangam jigéen. mais jigéen ju jóg di wax di euh, di euh, di wax ci réewum démocrate mu àndoon ak yéen di campagne ngeen koy tàccu démb. tey jii ay gis yéen wuutale leen mu jóg di waxi mayuñ ko fu mu fu mu yàqu nàkkam ne ñokket ñu tàmbali yuuxoo mbelelelelelel wajajajajajaj ñajajajajaj ba banam delloo dem toog yi loolu bàyyi woon ko mu wax ñett te bërki dem moo njaay ñoo àndoon dem a ko gën a nekk grand grandeur gën a nekk gën a nekk mat mooy bàyyi ko mu taxaw wax ñetti minute am dem toog ndax moom sax yéen a ko ëpp ay minute boo moytuwut mm. gis naa fa daal koo xam ne euh, mooy ki jiite groupe parlementaire benn Benno Bokk Yaakaar bi mm. euh, kan la Omar Youm mm. wax jam fa wax neex na ma lool parce que la muy wax leer na te itam teg na ko ci xam-xam boo ko dégloo da ngay xam ne kii moom da ngay ànd ak moom wala nga bañ a ànd ak moom euh, nit nag moom moom ak àndam ak bañ a ànd waaye da wax nii